tey seen émission Njur ak Njanaaw daf leen ñëwal fii ci plateau seet si benn éleveur éleveur bi nag spécialité am élevage poule d'ornement la mooy lépp loo xam ne dañ koy yar mu jëm ci loo xam ne dafay taaral kër moo taxoon nag ñu ñëwoon fii fekk si fi éleveur bi. Lucien ñu ngi fay naa la kontaan naa si seen ñëw yi tamit ñëw pour ngay ñëw gis décoration bi am ginaar yi ñu importé de euh, de Belgique de de France. ak euh, Allemagne. tey euh, su ma la doon laaj kañ nga commencé élever. Euh, bi ma commencé depuis 1970 boobu temps xar laa ñu doon def comme dama gis sama papa bëgg animaux yi ak yooyu pitax yi ak yi bëgg élevage ma ma jël plaisir comme ni mu amee plaisir bi si laa ko quoi plaisir bi nga xam ne sama papa moom ma

am na cochinqualité yi waaw ornement buñ koy wax yan race ginaar la ñuy wax ni race d'ornement la bon mun nañu wax race am bantam am na nègre soie am na sous-sexe herminé yi ñuy wax brahma herminé blanc brahma herminé noir brahma herminé bleu encore dinañu wax si fauve yi cochin fauve jaune tout ce qui nouveauté là mhm. si ginaar yi yi nga xam ne moom la ñu am dafa rafet si kër quoi tey lan mooy cochin cochin moom mooy euh, ginaar yi nga xam ne dañu am crêpe yi taxaw am pâte d'éléphant yi dégg naa Amérique la ko mhm. waaw foofu la am ak euh, yeneen euh, pays européens yak yooyu foofu lañ ko travaillé ko mais ginaar yi kañ nga ci dugg boo ginaar yi léegi am naa à pare ay 12 ans 13 ans. mais tey bi ngeen ciy dugg dañu gis ni ginaar yi amoon na amoon na tuuti xaalis mais dañ dem ba benn instant ñu gis ginaar yi mu tuuru si dëkk bi bëri ci dëkk bi est-ce que est-ce que ginaar yi ñu gis yëpp ñu am karaw moom mooy souche brahman bu baax wala moom mooy brahman. wala non ça si éleveurs yi fu ñu koy amee fu ñu koy wutee parce que mënu ma nekk fii nekk en bon man dem si yii dem si am plaisir ko lu baax moom foo ko gis jarul ñuy wax. metisasok kise karo bidu bare si antre or pinton biak brama bi ding ham kidin ko metise कोशियाँ भी सुन को बोले अकबरा मादिंग हम की को मेटी से मैं ओरिजिनलिटी भी अब ना या नाम पगाए उसी मैं गिना ऐसा अडप्टेशन ऑफिस सेनेगल इसका मेटू मेटी ना मेटी उल साढ़े पान निंको निंको योरे इफोंगम अमूर भी सो अमूल अमूर भी मुनो देफ दरा हाँ नमक गिस्ती न्यूबरी रनी इंपोर्ट आई गिना इंडिलेंड mais bu ngeen leen importer indi leen premier jour wala premier semaine naka ngeen di nekk ginaar yi ba ñu adapté wu. non da nga leen di isolé traité leen xool es ce que amuñu ay euh, petit euh, maladies yu ñuy yore ak yooyu yëpp il faut nga traité leen. ginaar yi ñaata temps la ñuy toog soog leen bu ñu juddoo nekk poussin yi. mun naa am neuf mois mun naa am euh, un an sax ça dépend si alimentation bi nga leen def stress bi su ñu amulee stress moom. dinañ produit le plus euh, euh, rapide man des fois dina am ginaar nga xam nañ ay un an et demi deux ans ça dépend rek chance la quoi. ginaar yi seen productivité lu muy non ñu ngi produire euh, lu ñu produire des fois mu réussir des fois du réussir si production bi waaw. ginaar yi suñu commencé nan yéen pourquoi du ngeen bàyyi ginaar yi ñuy bofal sen bopp comme nature bi ni mu ko c'est parce que bëgguñu parce que yii du ay ils sont un peu complexes quoi duñu leen bàyyi ñuy bëf. dañuy est ce que du aspect commercial bi. moo tax que nga leen bàyyi ñu bëf wala aspect commercial bi non non du lolo ni ñi koy def ni koy def ñuy réussir kontaan naa si mais qu'il faut avoir le plaisir. ginaar su fekkee plaisir qu'est-ce tax nga koy yar mën mon ko bàyyi muy bëf parce que nature bi non la ko bëggee mais tey soo demee ba nga xam ne ginaar bi yaa ngi koy jël di ko nenloo pendant 10 mois pour di am ay nen. Non, parce que. Euh, nous, quand on dit pendant 10 mois non, moi je ne vois pas ça comme ça. Nous avons ben qui ont commencé. Nous avons 2 mois, 3 mois, sans arrêt. Après, nous reposer. Ils ont les femelles bien mal. Mais non, mais femelles. Alimenter les noirs. Mais femelles, ils ne pas plus de 6 mois. Mais nous ne pouvons pas parce que nous avons une Parce qu'il y a des gens des fois dama leen di dama leen def ñuy bëf am na bu bu nekk fii mais yi ñu importé mënuñu leen bàyyi ça dépend rek soo fekkee am nga machine bi ba dugal ko si machine mais en parlant de machine waaw man dama dégg ni tay valeur u brahman bu daanoo hmm. wala valeuru u wala orpington machine couveuse yi bokk na ci non non non non mun naa la woon ñi nga xam ne si machine couveuse la jógee tey dañuy bëf hmm. yooyu ay wax la ñu ay wax rek mais man dama dégg ni ginaar su jógee si machine couveuse du bëf. day bëf. Ah waaw waaw. Hmm. yàlla lu mu sàkk kenn xamu ko. Hmm. li sax ma laaj la ne la aspect ginaar li ko war daaneel mooy que tey bu fekkent ni ginaar da ngeen leen doon bàyyi tey couveuse amuloon. Ah. ba tey brahman mu ngi jafe doo ko gis fu ne mais daf dem ba koy gis fu ne. 80 eh, pour cent yi dañuy bëf. wala dafa am ñu xam ginaaru brahman. Hmm. njëkk ni mu amee woon njëkk. waaw. Ah. ameetu ko njëg noonu loolu lan moo ko waral. non ça dépend ñi am ñi am seen ginaar ça dépend modèle ginaar ñi am. aussi tey yéen en tant que ay éleveurs. waaw ñun sama dama def remarque boo xam te ne man éleveurs yu Sénégal yi. ñoom defuñu benn effort pour di développer ak aussi di améliorer suñu race yi parce que tey dama ne kër ay éleveurs. ñu gis ni da nga koy gis ay ginaar yoo xam leen importé te ginaar yooyu ñu importé tubaab yi ko liggéey. dañu jël seen ay race locale di ci mhm. croiser di dem feneen di ci croiser ba améliorer seen races yooyu noonu ba war ko mën a bëggloo nit ñi mais pourquoi yéen mun leen def ni ñooñu bon man mun moo ko def nii fii mais am na ñu nga xam ne ñëw ñu ma jox leen ay or pintoon ma wax leen léegi comme am ngeen ay euh, poulet de euh, locaux yi nga croiser or pintoon bi ak locaux bi di nga di nga ginaar yu gën a ngandee poulet de chair mais mais pourquoi pas yéen yéen laa wax yéen éleveurs yi ñun bu ñu am bii

tey yéen ñooñu ñu amee way am mérite boobu noonu tey yow ñaan nga yàlla yow nga tey développé sa benn race boo xamante ne nañ ne a ah, race bi de mu ngi dugg France mu dugg Italie tey si yow la des fois dama koy def ma métissé ko ak euh, euh, poulet du pays bi mais su ma koy métissé gars yi su da nga yàq sa marque bi tamit man defuma su fekkoon pour loolu la su je m'engagé à ça métissé euh, poulet du pays am na ñu koy def am na ñu bare ñëw ne ñu di kii moo jox leen ay orpinton ay brahma ñu yóbbu ko si àll bi bon xam nga poulet euh, poulet du pays mënoo ko boole ak yii parce que soo ko boolee des fois dañuy gaaw dañuy dañuy fragile parce que soo ko boolee ak yi ñu importé nii tem ñu daanu dañuy contaminer yeneen yi munoo munoo boole yëpp ku nekk am na lu muy liggéey léegi man nu ma nu ma amee lii su ma gisee ki nga xam ne amul doole su ñëwee ras bëggal na lii ma am ko mu dem bu ko jënd bu cher mu am su euh, euh, euh, race bu baax bi soo ñëwee ma jox la ma jox la ka prix vraiment da ngay kontaan sax man ñaata yoon dañ may sollicité vraiment yaa ngi yàq prix bi yaa yaa ngi yegg nangam xam nga wax yi dañu bare si affaire yi ñun plaisir lañ si am léegi ku ñëw mun naa ko jox xel defal lii defal lii xam ñu fiy jugee. nekk si dëkk jàmbur yi ma jox leen ay nen may leen ay nen soixante nen euh, or pintoon ñu bétisé ko ak euh, poulet locaux ñu am fële si dëkk c'est des ñu ñu ñuy travailler di di am seen restaurant euh, restaurant si dëkk jàmbur yi. que yéen. waaw. Ah. ministère de l'élevage. waaw ah. mu ngi leen di boole. ci li muy def ci wàllu élevage si côté volaille. pourtant mi ngi liggéey liggéeyam de waaw man je l'encourage beaucoup parce que moom sonn ministre bi sonn na ah mi ngi jàppale ñëpp vraiment c'est un chapeau non vraiment lu muy def liggéey bu rafet la. mais tey. Ah. suñu volaille ah. Ah. locale yi. tey boo doon tey boo doon joxe xalaat. naka lañ leen war a améliorer ak yan race parce que du race yëpp ñu am particularité joxe poids. yan race lañu war a jël. dañuy or xam nga or pintoon yi ak euh, euh, poulet du pays. mun nga leen croiser dinañu améliorer dinañu am ay doom yu gën a rëy te dinañu adapté bu baax si si si si dëkk bi. kon Orpington moo dàq def ko Abraman parce que yeneen yi xam nga des fois am na ñu nga xam ne xamuñu ginaar bu am karaw si tànk du ñëpp a xam léegi da nga koy jox ginaar bi nga xam ne amul karaw si tànk. mais Orpington ak Brahman ban moo dàq def poids. ah, ah Orpington sa am na ça dépasse Orpington yi am na yu def 3 kilos am na yu def 5 kilos am na yu def 4 kilos. waaw orpite doon moo gën parce que orpite doon au moins dina bi dina génn. bitu élevage bu njëkk ginaar nga naan gis nañ ko daan yar pour lekk. mais tey ginaar dem ba toll ci foo xam te nit ki daf koy yar pour plaisir pour le plaisir des yeux. gis nga plaisir bi nga siy am doo dem hôpital pour faju li moo lay faj man damay fo damay man am congé chaque jour maa ngi fi nettoyé leen may leen médicament. antrecien eh, bi mă, mă si defec eu. Mem suma gripe cronic, suma polionța cronic, mă, suma ne mele le cac eu, suma oace scali nibi, dar mai non. Limo, li li dai fac cu, doar dem kerja buri joate. Li da fa pleasure bing si am, yalla moham. Hmm. Ah. Enak Euh, bien vrai que plaisir am si si élevage. Ah. mais aussi li lay jox plaisir. Ah. des fois war nga ko mën a jël. war ko ko mën a jël di ko lekk mais tey ginaar bu demee ba yegg ci yenn pris yi cent cinquante mille deux cent francs pour que nit ki jënd ko nii. lekk ko ah, aussi man daal fu mu nekk man musuma ko jënd man. man man non musuma ko jaay à ce prix là ku ñëw ma jàppale la nga am luy jar lu un million soo ñëwoon sax man ma jàppale la nga am ko moins cher si ginaar mais ñëpp xam nañ ko si man. pourquoi maya wala euh, oh c'est des poulets nga xam dañ ko andi pour ñëpp war nañu kontaan am ko seen kër ñi ñi def seen commerce ci affaire yooyu ñoom ñoo xam man mais ginaar yi aussi pour yar ko sa kër il faut nga am espace wala espace boo mënti am wala nga a non ça dépend su fekkee yow espace bu ndaw mun nga def benn benn couple ak benn euh, benn couple euh, benn deux femelles et un mâle nga def ko sa kër ngay ñëw soo wàccee liggéey nga toppatoo stress bi di génn Devunili purai fer etra miliarder so koi so só se é etra milionário yo gioi. Takai de mutis bena sambu mak. Desir bila de fadeng gis bena pa bunyo gamam stress. Manyo tak motor ni def bambi. Nyo tok fi dama buga de compressé utut. Dama sonno. Dama def kër kër ci sonno. De fadeng ma yuxu de ak yoy. Mais ku vou ku jëkëram bem ginaar am xarak yoyu. Vraiment war na ko encourager parce que du génn. Su wàccee su suace suco suace liggéeyam mu sonn day dem reposer ji foofu am na lu koy lu koy lu euh, koy def mu dunduwaat yii dafa yii dafa barke quoi. maanaam daal yow da ma bëgg wax ni que ni plaisir bi muy joxe moo gën fop suur bi mu lay suural quoi. voilà eh man de maa ngi fi defoo fois ay 7 heures du matin ba 8 heures du matin sax añ des fois benn café laay kii jeex na mais plaisir bi ma ku ma woo ma yëg ma ñëw lu am nga lii ou bien dama bëgg seetaan ma ubbi nga ñëw seetaan. plaisir boobu moom moom mooy richesse bi waaw. d'ornement dafa am ñaari catégorie dafa am. grande ney ak kii tey jii par exemple pour yar pour def ornement dëggantaan. lan moo gën a rafet ci ornement. bon bu bu gën a rafet si kër nga bugg benn affaire de simplicité man je vois nègre soit blanc yi. yàpp bi num mel. dafa ñuul euh, kii bi moo ñuul. der moo ñuul. mais yàpp bi nañ ne yàpp bi dafa ñuul. yàpp e, bi non musuma rey e, man du ma rey affaire yi ouh yu nga xam ne maa koy yar du ma ko rey non mais ma préfère bàyyi ko ma préfère bàyyi ko mu dee quoi waaw man du ma rey du ma lekk affaire yi. mais dama dégg ni nekk de soie dama dégg ni nekk de bi mu am. waaw ah. mooy que yàpp bi dafa ñuul. waaw ah. bi dafa ñuul non man der laa gis musuma vérifier intérieur musuma rey man du ma rey pigeon du rey ginaar dafa am ñu nga xam. soo fekkee da nga bëgg a lekk lu neex damay jënd ji. mais xam nga lan moo xam nga lu tax ma la ma poser la question. dañu ñëw ci kaw suuf fekk ko fi. yàlla amal ko def ko fi pour lan pour ñu mën di ko dundee. waaw suñ demee ba nga xamante ni dañuy yar dara loo xam ne dañ ko war a dundee te mënatuñ ko dundee. waaw man pour man cohérence foofu cohérence amu fa. non ça veut soo demee ba sës amuloo nga jël benn kooku moom c'est pas interdit. soo demee ba sës quoi. voilà yow kon yow sës moo tax nga kii nga yow. waaw ah, lu lu ndaw bi ma am mun naa jënd mburu naan sama lekk mburu la gën lekk ginaar parce que eh, affaire kii euh, bourgeois yooyu man xaw ma ko de mais est xam nga benn affaire waaw ginaar yi ngay gis ci yow yi ngay kii nii di ko kii nii méngeen yeeg ñangeen yi ñoom boo ko joxe la ñu soos ko bu gaaw ah bu gaaw mais suñu xamul suñu xamul valeur loo bëgg cin bi day day xonk rek mais nag man moom gëm-gëm bi ma am mooy que nit mën na yar dara ngir plaisir am mais aussi tu élevage dëggantaan plaisir ci la naam mais aussi yar bi dëggantaan pour que nit ñi di ko mën consommer la. mais am na yu nga xam ne gars yi dañuy mais poulet yi gars yi di di élever fii di ko jaay pour gars yi di ko consommer am na. mais bokkul ak yi. waaw mais xam nga loolu moo lay wan ne la poulet yooyu noonu ginaar yooyu noonu. tey non seulement. ci ni ko nit ñi waxee ñangeen yeeg mengeen yi dañ naan que ni ginaar yooyu amul cafka par rapport ak yii ñoo gën a saf non man daal ginaar ginaar laa xam ku la wax bii moom safara mënul togg kooku na dem fële wuti bale rek ba bale kuur ba ginaar ginaar la soo ko reyee soo ko toggee nu nu muy demee nu muy nu koy gars yi di defee si cin bi na togg bi baax waaw yow da nga jàpp ni ginaar ginaar la rek. ginaar ginaar la ba ci ba gis nga ginaar soo koy rey toujours da nga ko war a sukki ak loxo parce que da jël ndox bi nga tàngal ko. ñu bare noonu la ñuy def tàngal ndox bi si benn degré nga ñëw soos ginaar bi foofu génnee ne da nga koy dèjà ngi butit ak yooyu yëpp eh, kii bi eh, yooyu baaxul ginaar il faut le faire tout ce qui est naturel mooy mooy bu baax bi mais jël ndox bu tàng rek rey ginaar bi rek dugal ko nii mais yaa ngi tong tamit la looy tong foofu yaa ngi bax <laughs> yaa ngi baxal yaa ngi baxal intestin yi foofu foie bi yooyu yëpp

yàlla def mu dem ba mu saturé léegi mu ko commencé ancien ancien Brahma yi la quoi mooy avant euh, modèle yu bees yi ñëw XL yu bees yi ñuy wooye XL léegi boo mu ko àndee léegi nag gars yi gis mi ngi maa ngi jaay bu baax affaire yi gars yi ñëw léegi gars yi gis euh, affaire bi commencé di ma élargi ku ñëw ma jox ko ku ñëw ma jox ko maa ngi ko joonoon vingt mille ma yar ko pendant un an ma amoon per ku ñëw ma jox ko père bi cinq mille père bi dix mille ça dépend su fekkee toll nii sax maa ko doo jaay dix mille léegi nag gars yi fexe ba gis affaire bi rafet na gars yi exposé xaw ma ña ñoo exposé woon si foire ba gars yi gis affaire bi léegi mi ngi commencé dox gars yi ñëw di ma laaj est-ce que am nga ma ne ko non aw ma amatuma léegi dégg naa daal ku ku ko nar a andi ko bañ koy importé di ko andi nag si laay choisir ay am kii euh, laay choisir affaire yi. commencé andi ma commencé di ko jaay paire bi 10 000 ma saaga maa ngi yàq prix ñi demoon jënd plus cher ma ne ko non non il faut fii rek euh, c'est c'est maanaam li nga bëgg est-ce que mu ko élevage partage la. waaw partage mais il faut nit ki am nga nga coince sa morom déedéet ko def doo avancer mukk nit da ngay ubbeeku. ginaar yi chaque année da ngay gis ni indi couleur bu bees. Mais par exemple à ay jamono lisère mo fi xewone ren kayuté ren lavande ñoy jël rek mais toujours même chose moy am man ma orpinton bleu ak ñu gënël ma orpinton Colombia critiquer mais orpinton Colombia ça n'existe pas yow nga ñëw fekk je ko créé après gars ko mais parce que parce que nous du def dara créé day nekk fii di jaay ngaande maa fi gën a mun maa fi mais noo élevage du loolu da ngay def comme tubaab bi da ngay croiser des fois. mais xam nga des fois mën nga croiser. fekk na kii suuf si duñu duñu fixé wu. non duñu parce que croise bi ngay def mun nga ko def dans deux ans trois ans. waaw mais est ce que travail boobu noonu yéen. yéen ko ah. ciy parce que xam nga dafa am lu jafe. <laughs> du gis nga fa lay orpinto ñu ma croisé ñu ngi foofu waaw mais est-ce que c'est pas croisé bi dama ne est-ce que croisé bi croisement bi est-ce que fixé wu na moy que manam est-ce que tay li nga croisé bu ñu màggee est-ce que dinañ jour même chose ko ñom wala duñ jour seen maam même chose dañ ko do jour mais après gaay yi ma jaay ko ma distribué ko jox ko gaay yi man amatuma ko après mais Lucien croisé yomb na trop mais fixé ay couleur wala fixé ay race day am day am day am lu mu lu mënul am c'est parce que yow yaa amul yaa demul ba jeex rek yaa ko deful pour fixer ben couleur il faut que ñu dal ay un an deux ans il faut pas être pressé loo bëgg rek il faut il faut pas être pressé. mais dañu gis ni ginaar yi aussi seen feebar dafa bëri. non ça dépend si ça période yi la ça dépend si période yi il faut nga jug taxaw gaaw. ban période la ginaar yi di gën a fragile. mais ngelaw bi ñëw na bu bare gars yi dañu war a toujours di muur di muur et di traité di nettoyer. mais aussi tey ma gis ni. Ah. mais pigeon pigeon 18 ans. lan pigeon. voyageur non euh, pigeon voyageur pigeon pigeon ça date pas d'aujourd'hui ba may nekk xale bu ndaw ba may tout tànk laa ko ba toll mais je gis pigeon ma def na 18 ans. yow ko pendant 18 ans 18 ans la def. ma dégg nii am nga benn pigeon boo jaayoon Gambie pendant sept ans mu ñu gis. non mi ngi fi pigeon baa ngi fi du gis nga ko sept ans la nekkoon euh, Gambie mu mu rëcc ñëwaat moo borom bi ñow ñëw fii ma ne ko jëla mu ne ma non bëgguma jox ma quatre pigeon ma jox ko quatre pigeon mu yóbbu ma dégg nii da ngay jaay kilifa ci dëkk yi àdduna Afrique. non ñu bare dañuy ñëw si ay kii ñëw ma leen di jaay ñu ñu yóbbu bien ñoom des fois sax dañuy jël par si nen yi yégal ko si avion yóbbu. kon yow nen yi sax dañ leen nen sax dañ leen di jënd nooru. waaw ça veut dire que man léegi suma couveuse bu ndaw bi ma am su feesee léegi damay damay gis ko amuloo ma jàppale ñeneen ñi joxe la ubbeeku ko quoi ñeneen ñi am ko léegi man tamit damay garder pour man léegi yu si yu ndaw yi tamit remplacer ko mais faut pas ma ma rek même nen sax dama koy jox gars pigeon yu gars amul yu jar cent mille francs paire bi ou bien cent cinquante des ma jox leen. ma partagé ko parce que day métti gars yi tamit ñëpp bëgg am amour benn amour def élevage foog nga ubbeeku quoi il faut pas ñuy ñuy di jaay ngande ak yooyu non loolu baaxul doomu aadama da nga ko a respecté comme ni ngay respecté sa jur ak yooyu noonu nga war a rek. waaw mais euh, ñu ngi lay jaajëfal. waaw ah kontaan nañ trop. je tiens à vous remercier yéen mi nekk fi équipe bi ngeen nekk fi depuis deux heures sonn na ngeen tamit ngeen ñëw demandé ma est-ce que mun nañ def benn reportage. j'ai accepté parce que ñu bare bëggoon nañu ñëw di ma ki man ma bañ yow nga ñëw ak benn simplicité nga gagné loolu moo rafet quoi adduna nii la da ngay oyof waroo diis ñu toog rek def benn kii non dañ ko war a dañu war a jàppalante nga am ay affaire yu rafet dafa dafa baax nga seddoo ko ak ñëpp et puis je à remercier la famille Saltigué ñi tamit am xam-xam bi importé foog ma féliciter leen tamit ñoom tamit nga dem ba si dëkk jàmbur yi di jël oto di transporter nga ay mortalité foofu nga ñëw fexe pour andi andi plaisir fii nga bàyyi si ngay jàng fale en France di liggéey foofu ngay bàyyi ñëw di développer di liggéey fii nga andi yu mel ni tamit rafet na si famille saltige yi maa ngi leen di nuyu bu baax tamit di leen féliciter cher na cherul mais il faut avoir euh, il faut nga am patience li ngay def il faut nga am amour bi tanka amulo amul tu n'es pas propre d'esprit amulo eh, sa esprit setul soxol setul munoo def yi waaw il faut nga yërëm eh, yërëm nit des fois tamit nga gis tamit yaa yaa tane si mbedd bi nit nga am benn man des fois damay gis ma am benn cinquante mille balaa ma yegg suma xam ne dama koy distribuer ak nit nga amuñu ah, amuñu waaye soo nekkee ak nit tamit ngay liggéey warul la yeb da ngay da ngay da ngay liggéey comme comme ni muy liggéey liggéeyal comme moom parce que c'est pas parce que moo lay jël ngay liggéey ak ba waru la yem ngay war a am toujours fooy dox nit fu muy dox day am bopp si kaw dafa war a jël boppam teg ko si kaw warul ruus parce que zaman bi ngi comme comme les grands musiciens dañuy yàgg galéré sonn yàlla def la ñu am. kan mooy Nabil. Nabil mooy ak kii nga xam ne moom mooy moom moom moom affaire yi man maa koy jàppale quoi. ñu pare dañ foog man maa ko kii parce que ñoom ñoo màggandoo. Oui, parce que nit bi confiance. nit ki il faut euh, il faut quoi. Mm-hmm. mais ñu lay mais tu ma terminer muku, te remercier wu ma Sele accès voilà ça xarit la mm-hmm. te ma soxla mu moi mu am ko man tam bëgg ma moi.

que remercier wu ma Sele Diagne ndaxte moom moo ma yombal accès bi fii moom moo tax Lucien sama xarit mi nga xamante ni émission bii nii bi ñu koy démarré premier numéro bi moom laa ko defal muy Siré Diakité ci maalam boobu noonu ñu yor chef de daa dafa daanu te di ko ñaanal yàlla mu yóbbu ayam suñu borom defal ko lu gën loolu seen émission njur ak njanaaw fii la yem ak yéen ba beneen yoon dañuy dem xooli seen rubrique élevage d'ailleurs seen élevage d'ailleurs ñu ngi nar a waxtaanee benn ginaar boo xamante ni moom la ñuy woowee cochin mais ginaar bi cosaanam Chine la te ci njëlbeenam ñu ngi ko doon woowee Shanghai. li ko dugal biir Europe mooy vice amiral Cécile bi nga xamante ni moom moo nekkoon Chine moom moo ko dugal biir Europe en 1846 ba mu koy indi nag daf ko indi woon comme cadeau di ko may le ministre de la guerre bu France. ci 1846 boobu noonu nag la ko ministre de la guerre jëlee. yóbbu ko muséum d'histoire naturelle de Paris ndaxte ginaar yi six femelles la woon ak ñaari mâle mu jël trois femelles yi ak benn mâle yóbbu ko ci muséum d'histoire naturelle de Paris yeneen li ci des mu jël ko mu delloo ko le vice amiral Cécile